do madam Smith maa ngi koy nekk présidente réseau de Sèye. waral ndaje bi muy journée régionale de la calebasse de bi nga ak solo bi nga xam ne bi xam na ak nga vraiment ADC nga xam ne ñoo fi représenté action de Carême Suisse bi nga xam ne suñu partenaire number dajale tamit vraiment. pour ñu fësal li nga xam ne wax dëgg yàlla dañu signé partenariat ba léegi. suñu liggéey mooy ay femmes de développement ñu nekk réseau na di déroulé benn programme bi nga xam ne mooy calebasse de la solidarité moom ngeen di faral di gis ñu koy muur ak mbalaan bu weex moomu nga xam ne dafay suqali dafay jàppale dafay boole dafay jubóole ci loolu daal parce que réseau moom mi ngi ci lépp ci 2019 bi macha allah. def nañ fi benn don de sang def nañ tamit cent cent famille diminuées yi nga xam ne macha allah may nañ leen ay dund su weesoo loolu def nañ fi benn set setal ci marché bi parce que gis nañ ne dëkk wax dëgg yàlla boo fi dëkkee tamit il faut nga jëriñ sa bopp ay junni junni junni jigéen bi activité li ko waral mooy partenaire bi dafa yor fukki partenaire ci biir Sénégal ak ñett réseau ku seek ñëw nekk quatorzième partenaire wax dëgg yàlla li muy def fii loolu lay def ci yeneen région yi mais yeneen région yi dañuy def journée culturelle ñun li ñu def ute na vraiment ak yeneen région yi parce que ñun dañ ko gën a yaatal lu tax nag ñun réseau la ñu réseau ñu moo tax mu gën a yaat njëriñ bi moom daanaka xanaa ñu waxaat ko rek ndax su fekkente ne danga bokk ci calebasse yow membre bi nga toog ba amoo dund da ngay ñëw jël ci calebasse bi li nga xam ne yow sa coobare bopp yaa ko laaj ñu jox la ko te boo koy fay loolu rek ngay dellu amul intérêt su weesoo loolu tamit même boo nekkoon cent personnes présidente bi rek mooy yëg na jël nga am sutura daal ci biir li ngay jël kenn du ko xam la ngay dugal tamit ci calebasse bi kenn du ko xam donc dafa am solo li mu li mu li mu teg nag en priorité mooy nourriture ak santé ak euh, éducation ñun euh, ñu xool ne loolu bu fekkente ne rek nañ ko ci biir Sénégal benn coono amatul stress dafay daal di jeex parce que bu fekkee boo bëggee faju faju te doo fay intérêt jël li nga soxla nga faju daf ñu jàngal lu li ko waral mooy dama lay jox benn exemple nga xam ne seen jëkkër dañuy liggéey nekk ay fonctionnaire am ay carnet bu ñu soxlaa faju ñu dem hôpital Calabas bi tamit kaar la boo soxlaa faju dañ ciy ñëw jël amul ma dem banque amul xaaral ma ñëw parce que suñu xaalis du dem ci banque xaalis bi dafay tourner autour ko bokk heure boo soxlaa xaalis da ngay ñëw jël xaalis boobu dem faju sans problème te yow yaay wax kañ ngay fay yow mi ko jël si yaay wax kañ ngay fay te présidente rek moo koy xam man en tant que présidente mënuma sanctionné kenn amatul gendarmerie amatul police problème bu ñu ko am dañ koy réglé interne kon man dama gis ne partenaire bi xëy na sax Casamance a ko tax a jóg parce que xiiroog ŋaayoo daf fi woon moom mu ñëw mu ne déedéet ànduma ci loolu moom mu ñëw mu ne déedéet du ma doxalee noonu nii laay doxalee jigéen ñi nag gëm ko lool nekk ci gis njariñ ba ca nekk taxawal sa calebasse di def apport volontaire anonyme ma limal la ne ñett yooyu nga xam ne moom la def priorité bu fekkente ne ngeen nekk ci GIE boo xam ne ñett yooyu amul xaalis boobu mun nga dem ci GIE ba est-ce que dégg nga li ma doon mu doon commerce solidaire ba pare ci biir calebasse boobu bu ci alal nekkee alal boobu mën nga ko dem jël dem jënd marchandise yéen seen biir ngeen jaayee ko mooy cher lu gën a moins cher li ko boutiquier bi di jaayee kon réseau kon dafa ñëw pour résoudre ses problèmes lépp lu fi amoon comme problème réseau saafara te bi sant nag madame Aminata Angélique Mandiaye parce que nag wax dëgg yàlla lu jig njaag mooma moo demoon Thiès fekk fa partenaire bi muy action de Carême Suisse mu fekk fa ka ka fa représenté muy agri mu gis système bi xam ne lii baax na ci région mu nekk une de développement. moo ñu indil partenaire bi kon nag ñu ngi koy sant di ko gërëm di woo moromam yëpp ci lii suqaliku nañu jàppale nit ñi ci suqaliku dañ ko soxla ñun région naturelle bi naan Casamance. moom mu indil ñu loolu mënuñu wax nag te duñ ko tudd déedéet. te développement wax dëgg yàlla ci la lépp xaj soo déggee nga ne paix dafa fekk nga suqaliku.